ñoo ngi leen di nuyu di nuyu réew mi di nuyu bitim réew tey bu ngeen gisee bés bi nag tey li ko waral mooy danoo jëm ci bésu 15 mai te bésu 15 mai dañ ci ànd ak moo géet ànd ceeg Pape Souleymane Bathily te dañ cee fas yéene xaar ay surprise yu doy waa ndax bés boobu Sidi Diop dina ci teew bés boobu El Hadj Kayta dina ci teew bis boobu Pape Diouf doomu yaay càll ñi ngi ji dina ci teew ndax dañoo fas yéene waat wanewaat suñu culture ci beneen façon waaye nag mu géet lañ ci àndal loolu moom moo waral tey ñu teew fii ci géejawaay fekk fi ki nga xamante ni moom mooy Boucher Ketchup nga ne boo jàppee alaaji mbay loo koy def waaye lu jiitu loolu ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan non bi ñëpp waaw gannaaw bañ sant yàlla jul si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant monde entier di sant waa géejawaay gi yëpp yëpp yëpp yëpp di sant suñu mafia bi yëpp ah waa marché njaareem bàyyi laay bu bees mënuñu lim kenn ndax ku lim juum di sant boo yi nga xam ne nag ñoo fi sonn suba ba tey muy ay bàcc ay Omar ay Moussa ay Gorgui Sarr xam nga booy yooyu nga xam ne suba ba tey ñu ngi fi ay Ablaye Sall di defar di sant suñu kilifa suñu xarit suñu wasila di ko nuyu di ko ñaanal yàgg fi te wér muy Serigne Mountakha Bassirou di ñaanal jànkatu xasida yi Serigne Touba yëpp di ñaanal waa Touba bu baax a baax a baax di ñaanal waa Tiwaawan waa Njaasaan waa kër Cheikh naa Cheikh Sadbou di ñaanal kilifa diine yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo mu sëñ Muntaxa Basiru mi nga xam ne nag mooy suñu wasila mhm. mu tasal ñu ko ci kilifa diine yëpp di nuyu suñuy nit di nuyu suñuy xarit di leen nuyu yéen presse bi sonn ngeen trop foo leen dem lii ngeen di daj lii ñun dama bëgg mbër yi xam ni ak musiciens yeeg ñooñu ñu xam ni bu dul presse ñun ñu dara presse moo ñuy yëkkati ba nit ñi naw ñu presse ñoo ñuy wane ba nit ñi naw ñu kon suñu leen tegul fenn fi rek ñun dañuy daanu parce que bu ñu presse wanewul rek ñun door ñu jar dara ci àdduna tey ku ñu xam ak ku ñu yëkkati ak ku ñu respecté rek yéen a ñuy defar moo tax ñu defaru kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen siyaara di nuyu waa géejawaay yëpp di ñaan yàlla mu may ñu ndam ci kaw Alaaji Mbay incha allah rabi le 15 di nuyu kenn nag spécialement parce que c'est un homme boo xam ne xale la jeune man nee naa leen ku def lu baax ma wane loolu laa xam mooy sama carte d'identité ba nga xam ba ñi nga xam ni bëgg nañu lijjanti seen bopp ñu jéem a xam ñiy def lu baax ñu dem topp leen pour ñu defal leen lu baax moo géet dañ koy nuyu di ko sant sonn na ci làmb ji bu baax il a dépensé beaucoup de million te million yi mu dépensé sentuwu ci dara deux mille francs gët mu ko gis ci làmb loolu mooy bëgguma ci retour te xaalis boobu bu ñu paree di ngeen dégg fan la koy def ci Sénégal te xale la même pas trente cinq ans xale bu ndaw di liggéey kon nañu ko ñaanal yàlla defal ko jàmm il a dépensé beaucoup de million te làmbam kenn waru ko yàq dañ ko war a defar lii may def nii yëpp samay propre moyen la njambaane ngi nii xam na li may wax ñun ñaar la dem ba tey du dërëm boo xam ne nit yëkkati na ko jox ma ko c'est mes propres moyens muy open press muy billets yi nga gis ñuy waaj a jënd parce que njambaan sama xarit la sama doomu ndey la sama frère la tey lii bu ñuy bëree ñun ñaar ñëpp dañuy jël lépp ne ko Ketchup mi ngi fi kon kenn du la jàppale parce que noonu la demee tey sëñ Tuubaa bu la teralee nag hmm. da ngay tedd te da nga koy nangu teraanga boobu maa ko nangul sama bopp njambaan ku ko jàppalewul man dinaa ko jàppale man samay propre mooy laa jël maa jënd ay billets man maa organiser open press jël njambaan ñu ànd liggéey ci ndax boobu ba tey moom moo may soññu tey état bu nekk ci man wala ma bañ a am benn problème moom moo ma jël di ma sonal di ma tàggat yéene ma jàmm mu nekk sama xarit nekk sama mag nekk sama frère kon tey bu ko nit ñi jàppalewul nee naa ko bul woote bul woo kenn tey bu fekkoon man bëriwuma ci bis bi man maay jël sama propre moyen jox ko mu jënd ay pieds kon comme maa ngi bëri ci bis bi dañ naan ko ah Ketchup kat mi ngi ci kon na la jàppale kon lépp sama ndodd lañ ko teg dinaa ko dékku ndax Serigne tubaa rek laa yaakaar xéewal yooyu Serigne Touba jox na ma ko te dinaa ko def ci combat bi sonalu ko naa leen ko coro si ndogu bi ma kenn laajuma kenn lenn barke Serigne Bamba Xaadimu Rasul billaahi wallaahi dinaa jël samay propre moyen def ci lamb ji te incha allahu rabbi bu neexee Serigne Touba Xaadimu Rasul dinaa am ndam. incha allah boo jàppee Alaaji Mbay Mbay dafa jël làmb ji doon caaxaan ñun duñu ay ay xale ginnaaw bu ñu bëree comédie bari kaf bari ree ñun nit ñi ñoo ñu bëggee noonu dara mënul fëkk suñu bët tey li lu nit di am ci àdduna pour rëy rek wala di jaay affaire rek yàlla mi ngi ñu koy dénk barke Cheikhul Khadim bu dee murit murit la ñu pire bu dee ay koppar Serigne Touba ñu koy jox bu dee ay bee yàlla ñu koy suturaale kon bu ñu neexoon fuuy du ñu fuuy dañuy wàccee suñu bopp ba yem ak sénégalais yi ñu ñuy bëggee di ñu bëgg di ñu ma leen di bëggloo moo tax ñu may ñaanal may am ndam te loolu ma nekk noonu démb ak barki démb maa ngi ciy gis avancement du ma ko changé alaaji mbay nag dama koo nax li ma ko naxee mooy damaa comédie musicale waaw comédie musicale mooy nga nekk ci làmb mel ni ku ko joxul cër di ko patam patamee di badar badari di ràngati ràngati waaye bu guddi jotee bu ñëpp tëddee da nga yeewu dem lijjanti sa bopp. boo leen ma gisee ngeen xam ni je suis plein d'état. Hmm. waaw alaaji nee na dina kalkal nee na dina calcal nee na dina ñol ñol nee na day delloo buum ca mboy ga buy delloo buum sa booy ba day mel day day fekk man ma may ko ko. ndax alaaji may fi mu wéer làmb ji mooy man ma diriger yëngal bruit muy puus juumloo ma. te xale dafa màgg dama liggéey lu métti yéeg ci diini di tungam njambaan mi di yéeg ak moom ci kaw di wàcc di jël ndigal di yéeg ci kaw di wàcc Sa Thiès ma koy yëkkati di ko yéegal ci kaw di wàcc lu may dóor may yéeg Balla Gaye jël yat di ma dóor vidéo yëpp incha allahu rabbi vendredi laa koy dugal ndax lamb ji léegi ku jug na certificat médical damay bañ mu daw mais incha allahu rabbi vendredi ci guddi je vais partager tous mes vidéos ngeen xam ni j'ai bien travaillé et billahi incha allahu rabbi bu neexee yàlla ak yonent bi ko daan jël bu set wecc bu yomb incha allahu rabbi ah, ah. bu set yàlla am ndam samp yool te xol baa wala oh, boucher sama jabar ak samay doom quatre semaines ngi nii gisuma leen muy un mois. dëgg la damaa ñëw gàddaay fii nekk sama kër xarit Assane Mbaye bàyyi sama kër bàyyi sama lépp dëkk ak moom Assane Mbaye jabaram di ma toggal. maam mari ma nekk foofu quatre mois ngi nii sama jabar ma bët ak samay doom ma abandonné. loolu làmb jaral du ko kenn soo gisee mu jaral ma loolu nag damaa xam fi ma làmb ji di yóbbu ndax je suis l'estar jamono ji man Serigne Touba dafa maa def star may romb ci mbedd bu ma génnee si biti toog sama oto damay yaakaar ni man maa moom réew mi ndax buuse buuse bee kàcc kàcc gi day mel ni ay mbàccum gerte léegi nag boo xalaatee ni nit ñi dañ laa bëgg da ngay daw defet incha allahu rabbi néew ma maa mën maa ëpp doole de waaye yàllaa mën moo ëpp li ma war a yëpp def naa ko bu dee ñaanlu ñaanlu naa bu dee entraînement entraîné naa bu dee lekk lekk naa ba doyal bu dee nelaw nelaw naa lépp lu lamb di laaj rek def naa ko te bu bis baa di ngeen xam ni Ketchup mbir moo ñëw ci biir. tey jii alaaji dala daanoon tey nga ñëw pour fayu mais bu at bi sifflé est ce que nga ko may cinq minutes ngeen raak. alaaji mbay du xeex ak man nee naa la alaaji mbay làmb ji yëpp ci ay xel la ko teg. parce que respecté wu ma ñàkk maa respecté mooy ma jël làmb entraîné wul muy wër di taxawaalu jël làmb ji wéer ko ci gàllaaj jël làmb ji wéer ko ci ay nit pour ñu jàpp ma wala dara man doomu bambara laa ay takk ki fas yàlla sunu borom moo koy fente man bu ma oyofoon génn naa na bu yàgg mais Sëñ Tuubaa nekk sama ginnaaw nee naa ko ba tàyyi mu liggéey entraîné chaque chaque chaque kii face to face dama naan ko sa waay dama la nga liggéey bii passé gisoo leen ko daa xees pecc mel ni kuy xeesal alaaji mbay bu bis baa ngay xam ni mbër ak mbërëntaan alaaji nen da lay daan ba pare dem Vegas toog fa xaar non boobu mu wéer Vegas bi Vegas du noonu lañ fay demee dugg na ci pax. am na ñu ko mën a yóbbu Vegas. Vegas kan moo koy yóbbu Vegas. dëgg laa ah, la wax benn affaire bu ndaw. Hmm. yàlla na ko yàlla dimbali. yàlla jàppale ko ba lépp lu mu bëgg rek mu sotti waaye dinaa la wax benn affaire Vegas boobu muy dem man dama faa dem ba pare. min nga yoonu ngaay. d'accord Boucher bu ñu ñëwee tuuti ci ginnaaw El Hadj Mbaye saa bu ñu ko dékkee micro li muy wax mooy vingt combats damay daan Boucher vingt fois ndax fa ma ko jaaroon laa ko jaaraat ci lan la ko teg ba tax mu ñeme la. ci ay teg xel. ay dam yee ay kii non non bu arbitre prix fu mu nekk dinaa ko fa fekk. mbay Alaaji Mbaye daw. ak suufu arène nationale bi suufu arène nationale bi boo fay daw yaay taxaw. Bousse Bousse maa ngi lay maa ngi lay fay Bousse bu arbitre génnee seen diggante yow ak El Hadj Mbaye ngeen runkum daje. loolu nan lay mel foofu foofu. buñ nee mais ku ne xam ne man du ma wax ndax soo gisee ma duggaat ci làmb làmb dafa dafa dafa dee. ma bëgg ko dekkilaat te boo leen gisee nii Baye Balla xam nga li may wax Fadel xam nga li may wax jamono jii ma dugg ci làmb gis nga ni làmb changé waat na am na ñu nekk ci hôpital fan yi sama snap bi mën naa la ko wan sama snap bu buuse ketchup bi mën naa la ko wan yéen ñëpp ngeen gis message yi ma capture ay nit yu tëdd opital nan ma ketchup bañ gëjee seetaan làmb kenn xamul lan la yaa ñuy bégal. lu tax nga sentir lu tax nga sentir lu tax nga sentir Khadim mu nekk doomu géejawaay dëkk géejawaay lamb ji bëgguma mu génn géejawaay maa ngi nuyu nag fi sama yaay nekk muy kër Mbay faal kër Mbaye Fall lu alaaji nee na tamaate loqoteeg bu njàmb du benn tamaate loqoteeg bu njàmb du benn waaye dëkk nag maase yi am na ñànkatang ci di toggee waaye les séparé la lii mélangé la alaaj alaaji dafa judd ci bëre yaru ci bëre man ma ñu tàggat ma ci bëre man naan bëre lekk bëre dund ci bëre nelaw ci bëre raxasoo bëre sëlmoo bëre nee na ba dina bàkku bàkku bi bëre bëre fecc fecc soo gisee li ma fecc nga xam ne Alaaji Mbay mënul fecc lu raw lii te condition ba la muy laaj amu ko dinañ liggéey nga fent doy waar la ma fent tànk yee baax te Alaaji Mbay caxabal boobu muy laawaat bu ñu xam nga bëgg naa bëgg naa ko daan te duma ko gaañ ndax dafa am njaboot am lu muy liggéey bu caxabalee tànk bi laay damm wax naa la lu leer nag fii ci biir géew bi kan faama maa dàq bëre ci àdduna bu bis baa nga xam ni maa daq bëre ci àdduna te dinaa la woon bëre pire pire nag et dur mais Bousse bis ci yéen kan ama sama mag sama xarit la sama frère ama ñun ñoo nekkoon Amérique moo ma moo ma recevoir Amérique man moom ak diwaan dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te ko àjjana Ama c'est un frère c'est un ami lamb ji yoonam new ci Ama soo gisee ni mu doon defee ay vidéo alaaji may nga xam ni malak moo ko ci dugal Ama c'est un bébé xale la yëf yi comme moom day ambiance daal mais jàppee moo ko dara c'est un frère dama ko naw bëggal ko sama bopp moom xam na loolu mais combat bi bu arbitre ne prip du nelaw moom xam na ni du nelaw. ndax xam na ni gaynde pire mooy bëreeg Alaaji Mbay. waaw ñaari doomu géej waaye yaa ngi njambaan mooy njëkk a bëree daan ñëw jaar samay yaali ma daan sangu ba set xaaral ma def kër a Ibrahima Cissé laay solo am maa ngi faak ay ñetti abdu yu bari. baaru lan ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu ngi ñu ngi mais dinaa leen wax benn affaire. waaw bee passé ñëw ngeen samay ndogu man samay xarit ngeen dagg samay gërëm looloo indi lii yëpp encaissé gu ma dërëm ci lamb kenn joxagu ma man bëgguma kenn jox ma waaw ki bëgguma kenn jox ma mais damaa am samay nit yoo xam ni su ñu gisee dañuy ñëw jox ma ndax du ma leen laaj de ñoom ñooy ñëw jox ma ñu nekk arlem wala ñu nekk vacances ñu nekk Amérique comme grand moo Ndiaye ah, ah grand moo Ndiaye Séri Mado ah, maa ngi koy gërëm moo gën encore une fois ah, c'est un frère Aziz Ala Ndiaye ah Birane Ndour Massata Ala Ndiaye Ndoura Balde Pape Diouf Amadou Ba xaritu président de la République ah maa ngi gërëm àdduna xam nga di gërëm Askia ak Ngoy Fall di gërëm sama doomu ndey euh, nu mu tudd Pape Diouf di gërëm Birane Ndour Matar Diop suba teel Assane Mbaye Ibrahima Cissé aw ma fayam bébé sëñ Modou maa ngi gërëm bu Cité Safara sama kër maam fii Géejawaay Marle fils de Balla Balla gay 2 maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax xam nga dafa nekk ci ay bagages préparation bëgg am ndam. tay la tukki nii tay dafa am fu ñoo nekkoon léegi balaa may ñëw fii tay ji léegi la jël oto bi ànd ak leen dugg si àll bi te ñoo waroon ànd man ak moom mais combat bee tax di gërëm mbaytin waa école Mor Fadam yëpp ay móor yi saa Kajoor maa ngi koy nuyu di ko ñaanal wér yàlla na ko yàlla may wér ndax moom mooy suñu fierté mooy suñu ndam mooy suñu champion moom moo ñu tàggat ci làmb maa ngi gërëm malal maa ngi gërëm géejawaay yëpp maa ngi gërëm bébé baas di gërëm Ismaïla Baas di gërëm Mor Ouchar Serigne Saliou ah, Thioune ah, di teg lépp nag ci nuyoo bi may nuyoo ci àdduna nii yëpp di ko nuyoo nii ak li ma fi wax lépp lépp jël naa ko teg ko ci loxoy sëñ Muntaxa Basiiru Xaadim nuyu Baye Karim Alaaji Mbay tey la kañ mercredi yaa ngi wax ak xale bu Alaaji Mbay hmm. fii mënatoo fee waaj de trois jours moo ci waaj wees bul yàq làmb ji. ak a mën a bëri bañ naan jóg leen waaj waaj jot na. da ngaa tëdd dina man ma jóg waaj yi. alaaji Mbaye. alaaji. alaaji eh! Eh! Eh! tey dana fekk la géej waaye yow Boucher ngeen def open press. ayca ayca ayca. jii ngay bëri ki ne mooy Albouri. la 15 incha ñëw na waxoon tey sa adversaire xam nga ko dégg ngeen li boobu li ngeen ñu wax te wax jeex na def naa fu ñu toll nii sa adversaire loo koy wax ak say support yi nga xamante ne ñu lay xaar jour ci incha allah ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi ah di sant ñu fi teew ñëpp ah di leen jégalu yéen journalistes yi yéen ñëpp ah, ah, ñëpp ñëpp ñoom marre ah képp gu ñëw ah sama gars yi ci ginnaaw ñoom ah, waa Bosia bi tugaloo yëpp maa leen sant di gërëm mbokk waalo waalo ah ñoom sëñ Mor Dio Birdal ah Moxa di sant sama gars yi yëpp yëpp yëpp Lamine Bindu Ndiow ah aw ma seen fay gars yi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di sant samay mbokk waaw waaw ah. di sant Abdourahmane Gueye doomu yaay Pape Mayel maa ngi lay sant bu baax di grand sant Mor. baal ma la daggu ma la mani damay nga ñëw si combat bi ngay sant. Hmm? sa albuy bi ngay la 15. waaw dégg nga li mu wax. waaw yéen am la fu mu la teg. waaw yow tey bi nan nga koo jëlee ak say mbokk ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñooy supporter yi tëddul si loolu ba pare. ànd naa samay mbokk ak samay xarit yëpp. waaw waaw pare. waaw combat ba mu taxawee léegi mën na def na diir depuis deux mois maa ngi ànd ak sama coach yi boxeur bi sant sama gaa yi ah ñoom Sa Thiès sa gars yi ñëpp maa lay sant waaw liggéey nañ ci bu baax a baax ku ma xool xamante ni tollu moo lii liggéey nañ ci bu baax a baax a baax a baax wax amatul fu mu nekk nii arbitre soufflé rek moo des fu mu nekk nii. arbitre soufflé da ngay jëli wala da ngay xeex. arbitre soufflé dama xaar lépp laa def lépp. waaw waaw dama ko may dara. waaw waaw lu ma may ma jël. Ah, arbitre wax la am ci làmb am ci mais bu àdd suuflee lu waaye waxoon dina ci dellu waaw sa doomu ndey Boucher mi ngi nii taxaw yéen ñaar ngeen bokk bis bi loo koy wax di ñaan Serigne Touba mi ñu yaakaar bu defal ñu ñun ñaar ñëpp ñu tànn moom la laay ñaan waaw yàlla suñu borom defal ndam parce que ji dañ na ci ay coono ah waaw dañ na ci ay coono bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw combat bi na gaan dañoo xaw a wét nañu gaa yi jàppale ay biir lañ soxla ak ay kaar waaw waa géej waaye yëpp lañ génn jàppale ñu autorité yi nañu jàppale parce que làmb yi dafa xaw a tar quoi gars yi dañu xaw a seetaan dañu jàppale ñu ay doomu géej waaye lañ soxla wuñ dara bee kaar rek lañ soxla waaw woon nañ ci ñëpp. merci waaw. waaw tey jël sa doomu day Boucher mu wax après ngeen tëj. waaw di sant di santaat rek di santaat sama gars yi ah sant naa ñëpp ñëpp ñëpp sant sama benn grand grand Mor di sant bébé. waa borom Bochiaba sant sëñ Modou sama gaay ñoom Lamine Bund sant naa Massa Ndiarème waa Seras ah sant waa matt ma sant waa Massa Ndiarème Abdourahmane sama doom yaay ah Moussa Mbaye maa ngi sant ñëpp ñëpp waa àllu Saloum gi ah, sant naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di sant gaay yi may bëggee yëpp yëpp waa di sant ñi may ñaanal te ñi may ñaanal te xaw ma leen di leen sant yéen ñi ah ay coono ah, yaat ma balaa moo tëj ñu di gis 100 pour cent géejawaay bi waaw ñu ci bari ci teneeru géejawaay yu mbër yu mag yi gisuñu leen fii waral loolu nit ku nekk tamit ah kenn xamul lu la téye ah. ah. naa ne dañoo jàpp rek mais ku woo nañ lay yëgal la ah. waaw tamit duñ ci balaame kenn mbër Tanor Gueye waaye ñu bëri dañoo am combat ñu ngi leen ñaanal tamit yàlla may leen ndam ah. Alboury sa adversaire ñu bëri jàppee ko comédien nee nekkul comédien ci biir làmb lan nga waajee ndax boom boo fekkee da ko jàppee comédien nekkul comédien jàppee wu ko comédien rek lambu ju ma fonk la lambu ju ma fonk la barki Alaaji Fàllu Mbàkke lambu ju ma fonk la di ñaan suñu borom defal ma ci ndam ndax booy bërëg mbaraju maan koo xam ne day mbaraju rek mbaraju la ko gaay xamee foog nga yaa a gën a xam dama ko fonk de Alboury dama ko fonk di ñaan suñu borom defal ma ci ndam waa bu nekkee coono rek mooy maye ndama ah, incha allahu rabi ah naa ci am ndam waaw mais jën nañ ay quelques blocs ah buuse génne na ci xaalisam jënd ci ay quelques blocs man du ma fen du ma wax ne amul waaw mais nañu waa géej waaye ñëw jàppale ñi ñuy tiidaroo ñoom mako suba teel ñu ñëw jàppale ñoom Pape Diouf nañu ñëw jàppale Ahmed Aidara ah Racine Talla gars yi nañu jàppale waaw buuse jën na ay quelques billets mais doyul man fu mu nekk nii sama gars taxaw nañ ay vingt cinq car arène nationale sarede yëpp dañuy dem mais nañu gars yi ñëw jàppale autorité yi nañu ñëw jàppale sant gars yëpp Amadou maa koy sant bu baax a baax a baax Amadou Gueye aw ma fayam ah sant waa Massa Ndiarème ñëpp ñëpp ñoo xamante ni maanaam dañuy sonn ci njambaan ànd ñoo njambaan ndax lamb ah di sant ay yëpp di sant sama yaay dafa sonn ci combat waaw di sant Ahmed Touré Bagadoor ah Abdourahmane Gueye doomu yaayu Pamayel Diop maa ngi koy sant bu baax ñooñu ñoo jàppagum ci combat bi ah Tidiane Bàcc Seras aw ma fayam ah. maa ngi sant ñoom Dame Seye gars yi ma jox seen weccet ah waa Kër Massaar ñoom laay faal ah sant yëpp gorom Sall lay maa ngi lay sant bu baax a baax baax di la woo ci combat bi parce que man ay biir rek laa bëgg man bu dul làmb du ma dem kenn di la ñaan barki Alaaji Fallou Mbacke man bu dul làmb du ma dem kenn di la ñaan mais dama bëgg fu mu nekk nii ñu jàppale ma ci ay biir waaw nañ ma jàppale jëlal ma ay biir ah waaw c'est bon ah. di leen jégalu